xam nga ne environnement bi dinaa ko yor. dama dama biir turu musuma bett musuma bett. dara musuma bett teew. Dakar Dakar taxawal Dakar. Dakar ku sonn ci man nga Dakar. ah yàlla sama euh, man li ma gën a metti mooy Pambay ñu gis nga li mu wax ci réunion bi. Hmm. Pambay naan sàppar bu leen ko jox bu leen ko jox quartier yow dafa loo xam ne xamoo ko. yàlla waa koñ bi dañu laa bañ. gis nga ñun toogoon suñu réunion yëpp. waaye li ma la waxoon rek dinaa la fal ci nii wala mu fal la ci naa waaye nag bëgg naa nag. changement am ci koñ bi sagam wax nañ ba jël affaire yi na ma am ci koñ bi wuy ma li ma la wax na leer de. Eh, waaw noppi wala changement yi maa ko yor. boo ko yoree jëlal. nga Dakar. chef de quartier lan laa fal man maa sa addition ma si yor règlement. non xaw a dof rek fay jàmbaar la nga ba ci biir ñoo àggal ndax kii léegi léegi léegi damaa bëggoon boobu xam nga koñ bi taay mbedd yi taay ci mbedd pot yi ñu xëpp ci mbedd yi affaire salte yooyu a yor daal. tabaski bi di ñëw jël sama bopp bi mu ràppee yére sax aw ma moom laa lay wax bi xanaa nga changé ko def ko kaasu bu rafet tabaski moom ñëw na ba pare. waaw tamit doo ma jox xaalis man ma dem xotti ji. ah xaalis nag dafa amul de xaaral sa papa ñëw ba xam. waaw sama papa moom xaaral mu ñëw xaaral mu ñëw rek ba kañ ah mu ñëw. ah dafa yàgg de moom ko rek. ñaan ñaan ba kañ sama papa moom du génn xaalis. tabaski bi des na di. da ngeen a bëgg àdduna ñaanal sa papa rek mu ko su bàpp de mooy loolu waaye yàlla baax na mën naa am dina nekk yàlla baax na man sax ma changé tuuti waaw jóg leen ma leen doq leen a jóg jóg ah, su ma nit ñi la jeex su xam ne am na lu neex lu xew wala moo ah, xewati ah nee na alhamdulilah rek yéen alhamdulilah ah, bisimilah bisimilah monsieur monsieur monsieur monsieur le chef de quartier bisimilah. sant nañu yàlla ah moom la sant nañu yàlla. waaw kon benn naa ban waaye mënuñu ci yow. tos naa day bata a xaree. mënuñu ci yow boo dee xeex cim a ko ci yow. boo dee xeex cim réew poire la ko. waaw da nga ni ambiance sant yàlla. waaw tey bisub noos la. toogal toogal toogal. waaw papa yaa ngi naanu di. ah da ngaa sonn. waaw lu xew. ba ma bàyyi ma sa bakkan mel ni. wuy ma nga dugg nii. wuy ma. wuy ma toogal nag Euh, wax leen wax leen dégul Dakar. wax leen Dakar. du ñu wax du ñu toog nga tiim. toogal toogal toogal di jaay lu xew mbaa jaam. li xew maa koy wax damaa bëgg li xew maa koy wax. waaw ah, dama Dakar bul yàgg lii. bul ma ne li xew maa koy wax nee tëj. gis naa li tëdd xam jox parole. oo oh. ma ne dama bëgg léegi ngeen xam ne lan doon ñaan ñu ñëpp di ko réer réer ci koñ bi nee leen alhamdulilah ko chef de quartier bi a ngay jooy nag dañ bi léegi naa ko ko waaw ne woon naa ko xan ba ne ma ah ma ne ko sàpp ci koñ yow danga koo bëgg waaw waaye wute naa ñi xam ne yow seen i kay kenn xamul lu ñuy def lu ñuy wax ah waxal bisimilah jëfal gaa ngi nii euh, ah, sant leen yàlla samay rêve te xam ne mbooleem loo xaane xewoon na ci koñ bi day waneeku. walaay ah, waay ah, borom kanam yu soof mel ne bouton yëpp a may xajal. ku ma neexul ma fal nan ma chef de quartier maa yor mboolem environnement beeg ndox meeg sa ndax sax buy dox ci bi maa ko réglé. walaay ah, loo neex defal walaay loo moom laa jël muy sama avocat. Hmm. kenn dox avocat awataan lañu wax. waaw yow danaa jëlal jënd la iphone. ay lu ma yàgg a répé iphone. Eh, anphone la ñu wax. jaana c'est bon. anphone bis ni ko tey Dakar Dakar bureau ba laa la bëgg a jox. ay taw. léegi Dakar. waaw rek la rek la léegi rajo bi. Hmm? dama bëgg nga téye ko. ni ko jox ni mboolem mboolem luy information revue de presse. waaw. na ma envoyé dossier yi. caa du sa xol seddu registre de presse la ñuy wax registre de presse. waaw ñooñu yooyu war ngaa jëli cours de. yow yow yow réglel ma koñ bi maanaam njàngum gone yi. mënu ko de. fotowaas yi nga xam ne dañ ko tur ci mbedd mi. mënu ko de. nijaay loolu teg ko sama loxo ndax sama noon yi nekk si koñ bee moo waj moom laay ñoom laay réglé ba pare. papa man nag xanaa danga maa fàtte. yow dama la yóbbu Faras Faras. Faras Faras. firis la ñu wax firis. ay boo demee ma fàtte na nga nuyul ma tubaab yi bañ a kaa. ba commencé fa. Assane Sapa Sapa déglu ma dëkk boobu ñu jonk naa nu mu tudd. Sapa Sapa dëkk bi ñu jonk naa ne Dubaay Dubaay. Ah. danaa la yóbbu nga wayaasi. di jaay Dubaay. yow mënoo bàyyi ma jox la maa duñ ma yóbbu ci porte porte ja. porte porte ja de ma ca jaaxal changé. ma ne léegi nag kër gi. waaw Dakar. Sapa Sapa déglu ma. waaw ah. gis naa. waaw ah. yaa moom gaynde gi rek. tax nga jël gaynde gi rek yëpp ko ci tool bi muy ras darasi rek nga ras darasi mënut a nekk yaay chef de quartier bi ñëpp nangul nañ la ko waaye da koo jaar ci yoon ah waaye bëgg bëgg bëgg bëgg a bëgg bëgg bëgg jël ah naan ay yóbbu ma ne sama ma ko soxoree sama Dubaay bi nag naa la wax Dakar yow laa njëkk Dakar Dakaral ba sa ba doon léegi ah euh, ba ah, biig dégg naa la ngay onk sama biir bi doon daw bis bi xaw ma da ngaa lekkati quoi xaw ma ndambe ba faral nga laal wulaay du loolu ba ne nga ma yónni de sorde bi à part de sorde bi na dus bi moom dem bi day day day day réglé non fi am waaw ba boo duggee si dus bi da ngay mel ne yow rek yaa dëkk ci kër gi wulaay xam génn wulaay sama biir léegi na gone gi indi na gone gi indi bomançon bi lemonade tàngali ko xaw a soofi tuuti xam ne maay sedd waaw waaw leen yëg leen leen leen yëngalu waaw waaw cay waaye danga nga koy rey mi jaay sa kàcce nga bul xeex bul xuloo xoolal ni mi def sa yére bi man bu ma laal de xaw ma lay mel ni saxu duus laa yow maa doon la kon ni nga yàq sama sama jasmet bi. kii poudre mboot góor jën waaye yow nijaay xëy. kii poudre mboot góor jën wax naa poudre mboot. waaw fekk ma ci biir. poudre mboot et BFM ba nga waroon a jënd. baagaañu woo baagaañu. mooy sama caaji góor jën. Eh, na nga ko bàyyi de na nga ko bàyyi de. bu ma la fekkee foofu du baax nag ñaara ñaf kon lii yow ngëj sama caaji bon ñii ni ma sofee man moom kii moo gën a fuy ñëpp kii moom man damaa far damaa far ay syndicat bi léegi fay fuy xam ne maa la gën a maa doon fuuf teel ngaa fuy trop te dama ko fenn man kër gi lépp ma ko foofu seen bopp yi rëy yi ngëj